asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateurs yi Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar waa jotaay bi nag su nga ko gisee tey ah gis nga niñ ko profité def ko li ko waral mooy dafa am loo xam ne li tubaab bi da wax rek waaw soxlaa mënu naaj te itam lépp mbir mu bindoon itam dañ koy tëgg ñaari boor li ko waral mooy ku ne xam na ni rëg-rëg di doomu Sénégal ku ne gis na ne fan yëpp mu ngi woon ci MMA bi di ko waajal ba jóge New York dem Singapour doon fa daje ku ñuy wax Alain Ngalani di doomu Cameroun yàlla miy dogal nag dogal na ne combat ba ñoom ñaar jongante nañ ko fa nga xam ne ni moom moo di ca parcours kii di rëg-rëg gañe na ka nga xam ne moom moo di Alain Ngalani parce que bu ngeen xoolee dem ci suñu ay reportage am na ñoo xam koo xam ne wax na ne maanaam waa ji day sóob dafa gaaw abandonné dafa mel ni nag loolu mooy li nga xam ne moom moo mujj am ca ndax yaakaar ne rëg-rëg da koo dóor moom waa ba mu mujjee abandonné loolu mooy loo xam ne nii kon daal lu leer naññ la ci lambu Sénégal bi nga xam ne fi lañ ko découvrir gis ko fi muy lutte simple bi ba ni mu ñëw ci affaire frappe bi à tout bu daanee du nekk information parce que li ko waral mooy engagement ak na muy jëfandikoo la muy def na mu koy joxe cër moo tax ba nga xam ne tamit bi ko yàlla di pousse muy dem di dem di dem ba lit simple bi mu def ci loo xam ne jafe na ci li ñu xam ci histoire ni def ko ci ñu ne déet na waay mu ñëw ci la nga xam ne mooy lit avec Fra bi foofu tamit wax dëgg yàlla di fa wane boppam ba tax na tey mu décroché combat boo xam ne moo guy gi yaakaar naa ne ak at yi mu ñëwee ci lamb avec boo décroché ku nga xam ne champion bu mag la defe kon la ko waral mooy dafa liggéey ci noonu nag la defee commencé dugg ci MMA bi di def ay entraînement am di ci yëngu di ci def ay formation bi yooyu ba jot ci am benn combat boo xam ne fii la ko jongante woon daaw fii Sénégal yaa ngi dégg ak waa UFC yaakaar naa ñoom ñu organisé woon loolu bi ko yàlla dogalee mu def fi combat boo xam ne bu doy waar la gagné kim ko seqaloon gagné bu doy doy waar ba nit ñi sax jàpp ne kii rëg-rëg du moromam après nag xam naa gars yi ne kon kii nañ ko utal lu lu diis li jëli Alain Ngalani di africain ni moom di nit bu ñuul ñu boole leen ca Singapour mu jaar ci koom jàll loolu mooy loo xam ne moom lañ leen di xamal di leen ko yëgal di ko féliciter di féliciter peuple sénégalais bi ndax li tax mooy démb ñun wàcc nañ ak suñu micro sur le terrain dem nit ñi ban gis-gis la combat boobu ndax am na ñoo xam dañ ci xawoon ñu bëri sénégalais yi wax yépp ne wax dëgg yàlla soutenir nañ ko ñaanaloon ko yàlla dafa mel ni kon foofu esprit sénégalais bi moom la ñuy parce que bu fekkente ne fii lañ na ci réew mi moom di jongante kii di xëcc yóbbu Guédiawaye kii jëm Caaroy su kërogee ku ci ne da xëccal sa bopp waaye nag bu nit ki porté drapeau national dem à l'étranger di fa jongante defe naa lay gën a jaadu moo ñu soutenir ko te loolu la ko sénégalais yi defal te defe naa itam soutien ba yegsi na ndax moom mi nga xam ne moom mooy rëg-rëg boobu ba tey ñu ngi déggante wax dëgg yàlla rafetlu na itam soutien bi ko sénégalais yi soutenir parce que wax na ma ko lu yàggul ci vocal sànq léegi bi ma ko bi ma lire vocal bi muy rafetlu tamit reportage bu nga xam ne def nañ ko moom en personne ak ay nitam ak ay nit yoo xam ne ñu ngi nekk à l'étranger mais buñ ko féliciter tamit dañuy féliciter ensemble di Leyti Sène mi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllum euh, lu mbiri rëg-rëg moom moo koy saytu di ko toppatoo muy koo xam ne tamit wax dëgg yàlla ah, taxawaayam ci rëg-rëg rafet na trop trop et puis ànd loolu lañ ci soxla ay nit suñuy ànd dañuy ànd te yàlla tax li koy waral nag mooy su dëgg ñëwee la muy metti metti ki nga nekkal su la ko joxee ah da koy jël te yàlla tax xam ne dëgg la la wax parce que mooy tax nga jubbanti ko gis yoon wi waaye tamit faaw ñu féliciter ñi nga xam ne ñoo ko wër bu dee fii Sénégal la ci wàllu mystique ñu mel ni ki ñoom Cheikh seex bu Joal seex bu Reug Reug comme ni ngeen ko xamee ñoom Birane ñoom Daawur ñoom ñëpp ba ci àjjuma marché asalem ñoom ñëpp ay nitam yoo xam ne nii wax dëgg yàgg yàgg nañoo gis mu ak moom ci géew muy xale xam ne daal tey ci niñ ko gisee bu ñëwee ci moom Reug Reug ci ni mu gëmee li muy def yaakaar naa ne ak MMA bii xalaat naa mën na cee dem sore sore sore parce que li tax ñu wax ko mooy li ñu gis mu di ko def la li ñu gis mu di ko def ci ni muy joxe mbir yi fayda ak ni mu koy joxe cër parce que li Youssou Ndour wayoon rek noonu na Dakar sax xulle boo koy jaay faw nga am fulla boo ko deful ma ñam moo koy jeexal tamit mel nag rëg-rëg moom li mu dugg am na ci fulla am na ci fayda kon ñu ngi ko ñaanal yàlla li nga xam ne moom la soobu nii muy carrière international yàlla na ci am ay réussite yu baree bari moom bépp doomu Sénégal boo xam ne dugg nga ci parce que bëri tey ay Sénégal yoo xam ne ñu ngi commencé di fréquenter MMA bi ndax ku ne gis na ni Siteu defoon na ko fi daaw ca États-Unis gagné combat moom itam muy combat boo xam ne bu amoon solo la waaye ki nga xam ne war nañ ko defal mention spéciale mooy Serigne Dia Bombardier mi nga xam ne dégg na roi des arènes ñaari yoon ak tel l'adversaire de Balla Gaye numéro 2 parce que li tax moom moo ubbi buntu bi te olof Njaay nee na bu njëkk a moom lañ naan jinax a ngi nii waaye jeneen ju ca toppati jeneen a ngi ne la ñuy wax kon indi moo découvrir MMA boobu waaye bi mu koy découvrir tamit fi mu ko jaarale mooy ci sénégalais comme moom donte kooku à lay vivre muy Rocky Balboa mu dem gagné ko ñu ne déet na waay ñu tegaat benn ceinture boo xam ne nii bu am solo la ci wàllum MMA moom Bombardier mu dem ba Angleterre gagné ko kon mooy koo xam ne moo ubbi buntu bi defe naa kon moom it des mën a def lu dul ne ko jërëjëf parce que tamit moo xaal yoon bi mais encore une fois rek di wax ne mbër yi ci parce que damay gëm ne tey ñoom mbër yi war nañu mën a entamer leneen. boxe am na fi sido am na fi karaté am na fi lu ci ne am na fi am na ci ay mbër yoo xam ne seen bind ak seen corpulence may la leen ñu def yeneen sport kon yaakaar naa ne war nañu gën a ubbiwaat euh, xel yi gën a yokk seen niveau au niveau international ba mën a jongante ji ci yeneen ring yi ci yeneen compétition yi parce que loolu lépp dina leen ma expérience et puis gën a yóbbu seen tur feneen parce que tey rëg-rëg xam nga ne tey ña ko doon seetaan ñi cëpp du ñu ay sénégalais xam nga Singapour yaakaar naa mu nga ca Asie yaakaar naa ne kon foofa sori na lool mu dem fa en tant que sénégale jongante fa ba gagné kon félicitations li tax nag du ngeen gis ay image fi mu nekk nii ci mbir moomu parce que ña nga xam ne ñoom ñoo organisé mbir ya daal dafa am ay conditions parce que ñoom dañu respecté droit d'image fii ak le 29 janvier ci xibaar yi ñu am. bu jotulee daal du ñu nangu benn image bu circulé ci mbir yooyu wala ay photo moo tax fi mu nekk nii yu baree baree bari mënu ngeen ko cee gis mais encore une fois daal di wax nekk rëg-rëg félicitation di féliciter tamit sénégalais yépp parce que ku ci ne comme ni ma ko waxee sànq rek yaa ngi ko doon ñaanal parce que tamit loolu mooy li nga xam ne moom moo war a am dompat sax ci sot la bokk di ko wax ne nag ah moom signé na yaakaar naa ne ay combat yoo xam ne bëri na yoo xam ne signé na ko war ko jongante ci MMA bi li ci kanam kon ñu ko ñaanal rek loolu si kanam ci ay comba MMA yoo xam ne mu ngi koy jongante ak ay étranger yàlla na ko ci yàlla may ndam yu leerte gaaw te itam am nañ ci yàqin la ca des nag mooy wala fa ko wax ku wal mburu tuddub dëkk rëg-rëg it wal na mburu moo xam ne fii ci Sénégal la ko wale muy digganteem ak guy gi la baobab bu way guy gi bu ceena ba muy combat boo xam ne tamit wax dëgg yàlla bëri na enjeu bëri na coow loolu nag li ñu xam mooy daal lamb moom ak MMA c'est pas la même chose te itam moom rëg-rëg am na adversaire de taille muy guy gi waaye loolu nag li ñu ciy wax mooy rek ne ñaan yàlla ñu yegg ca kombaa ba ñu jongante ko que le di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm di nuyu suñu soppe yépp fu ñu mën a nekk rek ak ñépp ñi nga xam ne ngi nekk di ñu suivre fu ñu mën a ne ñi nekk Sénégal ñi nekk Afrique ñi nekk Europe ñi nekk asi ak ñi nekk ba États-Unis du ñu fàtte kenn parce que à tout moment ñu ngi ñuy suivre di bàyyi xel li ñuy def di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp Aliou Sow Aliou bu Yankaaw maa ngi koy ca marché Thiaroy moom tamit di soppee di xarit di rak di dëkkandoo maa ngi koy bu baax a baax ñoom Ndongo Fall Italie ñoom Balla Gaye itali xam nga suma ma gaa yëpp ak Ngañ Sow te États-Unis Kentucky maa ngi koy bëggee taal bi sa cun di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñu suivre rek foo mën a ne Serigne Ndiour tamit duma ko fàtte mukk di ko nuyu di ñaan jàmm xulle di la remercier di la ñaanal jàmm yow mi nekkoon ci wàllum film bi di nuyu élage bi nga xam ne moo nekkoon ci montage bi li lañ ñëw rek nañ leen ko andil jox ko muy information boo xam ne bu leer la que ni rëg-rëg combat boobu ngeen doon tiit yàlla may na ko ci ndam diggante mag ki nga xam ne moom mooy Allé Ngalani